naa bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar muy Papa Boy Djiné Bébé Bismi moom moo sut moo ñuul moo féete à droite ñu ngi lewtoo monsieur le noo gisee combat bi yëkkatil noo gisee combat bi yëkkatil micro combat moom nuru na ne combat nar a neex la waaw ndax ñaari mbër yi ci nekk dafa am engagement waaw waaw xam naa kenn bëggul si ñoom daanu nag kenn bëggu cee daanu waaw kenn bëggu cee daanu. te ko nag am nga engagement jox nga combat bi ak xam. waaw te drapeau Bassirou Kala ñuy bëre. waaw drapeau ka Kala. sama drapeau xarit la. sa drapeau xarit sama drapeau la. ndeysaan. monsieur le maire nee na sa drapeau xaritam. waaw loolu sama xol sedd na ci. waaw bu ñu. toog ak sama sama sama mag. di ñu koy seetaanandoo loolu sama xol def ci sedd. waaw xam naa innovation chaque jour ci day ñëw. waaye yéen bokk ngeen ci ñi innové yàlla na gën a yokk ci barkeem Serigne Saliou. ñaari mbër yaa ngi lewaatoo waaye ku nekk da ngaa taxaw benn place faw ngeen jege ñe de moom daal bu ngeen laalewul jël du am su ngeen laalantewul jël du am de. Papa tibb na suuf diw ca loxo ya léewtoo laalanteeguñu ba tey. waa ji bëre leen papa am na trois avertissement ah oui Bébé Bismi benn parce que bëri papa booy jinne loolu dañuy dëgg sa xaalis jël nga ñetti avertissement te combat baa ngi door a commencé ñu ngay bëgg a laalante Bébé Bismi njool ñuul yor ngemb lu weex fee de droite papa yor moo takk téere yu bëri. tere yu jaune bleu papa ngi dox ci koom Bébé Bismi jëm ci saaku bi xalaat naa dinañu xeex de cey Papa Boy Djiné cey Bébé Bismi waaye cey Fallou Ndiaye drapeau Basirou Ka borom Tiwaawan Pël eh papa ngi xeex ak moom de bébé foo jëm taxawal bëre Bébé Bismi am nga ñaareelu avertissement Papa nga koy gëddaat Papa daa bëgg a Papa ko may jàmm de Bébé fan la jëm Bébé luy problème am ah Bébé Bismi ko dal laa ilaaha illallaah Papa Boy Djiné léegi daa mel ni ku xaw a yàkkamti Bébé luy sa problème na entraîneur bi Bébé ngay sëlmu Basirou Ka toog Moustapha Mbengue toog Kër Massar léegi ku ne am na ñetti avertissement ñoom ñaar ñoo tollee avertissement Bébé bis mu pied droite la jiital fausse Papa Boy Djiné pied garde normal Papa daal daa mel daa bëgg a dox ci koom di na suuf mais nag boo xoolee ba tey songooguñu Papa nag mooy gëdd bébé ngi ne jàkk di ko xool bébé ngeen jàkkaar lool kooku ngeen seen ab arbitre mooy màcca bëre leen nañu jàppante nañu papa dafa bëgg a xeex ak moom papa mbaa duñ la war ndombo papa dinañ la daan daan nañ la papa booy jinne oh! waaye Bébé Bismi waay ci xel la bëre ak moom waaw Bébé Bismi xel la bëre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 naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk